Midi Culture. tay di ñenti fan ci wéru février atum 2020 àdduna wërngal këpp di ci magal xex jangoro ji nu dupé cancer réewum Sénégal nak naam kon laal na leen nguur gi ba ci yeneen kurel ñong ci défi djégo abdoulay fi Abdoulaye Diallo mi jëwriñ ji yoré walum finance ak budget ci gouvernement bu Sénégal limu xamlé modi kon euh, président Macky Sall ak nguuram mo gën fop kon nguuru ko président Wade euh, tax Serigne Bara Doli Mbacké nek président groupe parlementaire liberté et démocratie euh, di ca andi ay tontu jaww kon ni mi soppé xar kanam tax ñun ñu def taxaw sétlu addu euh, jëmale ko ci li nu duppee pollution de l'air reportage bi tey ñuy waxtaanee euh, jaaykatu fëgg jaay yi ni kon seen i mbir doxul ren ndax li di sedd bi euh, dafa yàggul li mbokk ak leneen mun noppee dinañ ci boole nee ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soga dugg ci pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan mu gën caa fës kon jeune artistes yi nga xam si kon dañ doon waxtaanee wàllum industrie musicale fële ci maison des cultures urbaines bu Ndakaaru leneen lu ñuy di pastelu bi nga xam di jëfandikoo te seen wàllu wér-gu-yaram nataal bi gan gi ak yëglekaay yi xëy suba ak tey mooy buural di Culture ñu ñaanalante Kader Lo Abdoul Xaadir moo nekk ci machine bi. Midi Pédiculture ngeen ci ànd ak Serigne Saliou Seck maam ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel na ma leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee ngeen ci yaatal gi mu di kon bëccëgug tey ji yam ak ñeenti fan ci weeru février àdduna màggal xeex jàngoro jële di cancer fii nii ci réewum Sénégal nag tolluwaay bi moo di téeméer boo jël euh, juróom-ñett fukk yaak ñett daanaka mën nañoo faju ci euh, mbir mu ni mel te duñu fay dara mbir la nag moo xam si weeru octobre atum 2019 ba léegi lañ ko daal di euh, xaati mu nekk ñi nga xam si ñooy ñooy dunde kon ak jàngoro ji nu duppee cancer gynécologique ñu bari ci askanu tamit joxe nañ seen xalaat jëmele ko ci cancer ak euh, tolluwaay bi reportage bu Chérif Adramé Cissé Loum ak Papa Madiakhaté sar ñu dajeek ñom ci mbéddu dakar yi suñu ñaari interlocuteurs yi xam nañu bu baax li di cancer ba limal ñu ci yenn yi. cancer du col de l'utérus cancer du pot cancer du sang am na cancer comme bii jàpp jigéen ñi seen butu njurukaay ak cancer wen ak cancer de foie bon ak cancer cancer boo xam ne ci xol lay nekk. xale bu jigéen bi ay atam war a toll ci ñaar fukk ñu fekk ko muy jënd ay fruits di xamle ne ñàkku koppar mooy jafe-jafe bu gën a mag ci ñi amee jangoro cancer. cancer dafa nekk feebar bu nga xamante ni parfois day toucher lu ëpp jigéen ñi. ko waral mooy euh, parfois manque de moyens koy waral lu ëpp parce que am na ñu nga xamante ni parfois ils ont atteint le cancer. Euh, ci par par par manque de moyens daal. Ami Dieng di beneen soxna bu ñu dajeeg ci mbedd mi jàpp ne lekk gi ci boppam la ñu war a xoolaat. lu suñu maam yi daan dundee suñu yaay yi par rapport ak suñu aliment léegi parce que léegi en général ñun jigéen ñi li ñuy togg ñu ngi wax magie yi baaxul. magie yi déjà rek ñu ngi wax baaxul. Mm. waaw kon nag nañu wàññi magie yi ay façon des sosa. waaw waaye genre épices yooyu dañuy génn xamuñu lan lañ ko defaree. at bu ne ay junni junni doomi aadama ñooy ñàkk seen bakkan ci wàllum cancer fépp ci àdduna bi te lii di cancer bàyyiwul xale bàyyiwul mag ba tax ñi ñu la di sàkku ci état yi ñu wut ci ay saafara ci ni mu gën a gaawee. jaajëf papa ma jaxate saar Liska tamit ak kuréel la goo xam si ñi ngi ko sos weeru novembre atum 2013 li leen tax a jokkoon moo di teggi pexe ba xeex jàngoro ji la di euh, cancer ki la di Fatma Guenoune mooy euh, njiitul euh, Liska kon di Ligue sénégalaise contre le cancer moom nag nee na kon nguur gi jàmbaar lan waaye ñoom it ñi ngi def ay pexe ngir xeex jàngoro ju ni mel moo nekkoon ganug 9 11 ñu teewlu ko. cancer bunt bu ci njurukaay cancer ween mooy cancer yi ci Sénégal ñoom ñoo raw gàddu yu teg ci cancer wu euh, foie bi après euh, cancer wu prostate cancer góor yi mooy quatrième position cinquième position mooy cancer wu estomac donc cancer wu bi nemmeeku nañu ne moom mooy cinquième cancer

ñu ngi woon amoon benn rajo euh, thérapie. te ñun ñu ngi am léegi ñeenti euh, accélérateur de particules pour la radiothérapie euh, traitement wu jigéen ñi cancer chimiothérapie bi c'est gratuit yeneen faju yeneen cancer yi wàññi nañ ko ba tey des na

kàddu yi Fatma Gueye nekk kon euh, présidentu LISCA nekk kuréel gu jug taxaw ngir xeex jàngoro jile di LISCA euh, jàngoro jile di cancer euh, moom nag moo nekkoon ganuk 9 ñu wax ci leneen ak Abdoulaye Daouda Diallo di jëwriñ ji sàllo wàllum budget ak finance ci gouvernement bu Sénégal moom nag ni ki démb moo nga woon ca pencu ndawu réew ma foofee nag fi la xam ne ni kon wàllum wàññeek yokkute gi bu nu méngalee nguuru ko président Macky Sall ak nguuru ko président Abdoulaye defi Diego euh, jéego 2012 ak legi ñu nekké fi lolu nak nek ay cadeau yo xamni ci euh, Cheikh Bara Dolli dako daldi wéddi mom mi nekk kon njitul euh, groupe parlementaire liberté et démocratie ay cadeau mu ngi ni ñu tewlu ko. simu Abdoulaye Wade kenn mënu ko wax tuddu ko ba mu jeex ci tuddo ci président Macky Sall ndax fukki at la ak ñaar juroom ñenti at yi ñok mom ñoko and ci juroom ñenti at yi li gënon na ci nguur gi moko yoron mënu ko tuddu yi tamit. ca tuddoo président Moustapha Niass ndax nekkoon na premier ministre bu Abdoulaye Wade fi may ñëw rek mooy nax na askan bi

yokku na ko ba 9000 francs kon monsieur le ministre waxal Macky Sall ne ko Sénégal yi dañu sonn fatigué nañ tey jii mu doon ay jafe-jafe yoo wi ñu ngi koy ndax ay jafe-jafe tey jii nii indi nañu tey ci jamono boo xamante ne tey facture courant yu seer yoo xamante ne tey ku daan fay tey fukki junni tey ñaar fukki junni ngay fay loolu ba muy campagne waxul woon loolu Sénégal yi dafa nax Sénégal yi ba falu tey bi mu faloo tay jël ay jafe-jafe ak i métti tey teg ko ci bopp Sénégal yi boo demee waxal président Macky Sall de

gestion de l'air nekk lu askan wi di dund saa su ne ci réew mi rawatina ci banlieue bu ndakaaru paa yi ñu fekk leen ci grand place di waxtaan bokkuñu ak sénégalais yi ko xamul. jaww ji fi mu nekk nii dafa am ay yoo yu salte bu ci nekk di jóg ci kaw ñuy ko noyyi. monsieur Fall ak monsieur Guèye jàpp ni lii moo koy indi. camion car ci biir dëkk dafa war a xewi war nañu am yoon boo xam ne ñoo fay jar wala li kii moteur bateau moo ci nekk ponkol la huit cylindres dafa xiin poussière yeeg ngelaw yi ngay gis yëpp man li ma ci gis daal moo di daal effet wu réchauffement climatique bi nga xam ne causé par par les Occidentaux et les Américains ak seen industrialisation bëri bi gaz yi ak effet yi kenn xamul bëri ak tout fexe ba saytu oto yi daw ak nguur gi taxawu ci la ñaari paa yi gis ne mooy saafara bi. pollution bi li koy wàññi c'est simple oto bi moteur dafa am segment huile brequet arbéracam piston segment ah. loolu bu fekkee am na bu ci yàqu nañu ko defar fumier dootul génni non non fumier génni vapeur may génni dootul xiin comme li muy toxique a ay mesures parce am na oto yoo xam ne at at am na at yoo xam ne oto waratu ko daw day màgget comme ni nit di màggetee. pollution atmosphérique di indi ay gàllankoor ci alam gi ak ci wér-gu-yaramu doomu aadama yi ba tax na boroom xam-xam yi ne réew yi nekk ci àdduna yépp ñoo war a booloo ñoo war a booloo ngir indi ci. ay saafara. jaajëf Aminata Ba ci mbir yu uh, demee noonu sax la ñuy des kon ak uh, jaww jeeg uh, daanaka léeg-léeg mu sedd léeg mu tàng nekk mbir moo xam si nag moo tax ba jaaykat yi fëgg jaay ren gisuñu seen bopp la ko waral nee nañ kon sedd bi dafa yàggul reportage ca Colobane Ndeye Mati Dieng waaw yërey doom yërey doom fukki waxtu ak ñaar ci suba moo jot mu fekk ñu ca Colobane jaaykat yi jóg seen i fëgg jaay di xaar ku leen ni ñaata Birane Ndiaye di ñu xamal li tax ba gisagul client yi comme ni mu ko foogee woon seddaay bi am suñu liggéey bi impact ndaxte moment bi ñu xalaat woon ne seddaay bi dugg si parce que année bii passé le 31 décembre sax dafa tàng léegi nag fekk nga jënd ay yëre tàngaay su fekkee ne yow jënd woon ay yëre seddaay day fekk sa liggéey bi yëpp lu ñëw day taxaw te client yi ñoom ñooy seet leneen fekkee ne ngay jaay en gros nga jënd seddaay bu ñëwee dañ naan la yëre tàng ku bëgg yëre seddaay mënoo ko jaay yëre tàng dafa mel ni lu ni mel moo dal Diop di beneenug jaaykat bu wékk ay pull-over jeget manteau ak i veste. su conteneur yi wàccee dem jëli bagage te bagage sedd dafa gaaw am pertement Sénégal du sedd lu yàgg stocké bagage bu bari di sedd wala jaay wala problème bi nekk non doxul parce doo xam loo war a dagg exact Fatou ci balu fëgg jaay bi la ñu ko fekk mu toog di jeex yëre bu diis ndax jàpp na ni seddaay bi ba tey jeexagul ñu ngi dugg moom ci seddaay la te xam na ni doo dugg ci seddaay Sénégal jamono ji rawatina ndakaaru bu seddee ba nga ni ñoo ngi ci sedd mu xëy tàng lu ni mel nag gàllankoor lool jaaykatu fëgg jaay yi ne bu temps bi melee nii ñu xam ban xeetu yëre lañu war a jaay jaajëf Ndeye Mati Dieng foofee ca Colobane jàpp aéroport international Blaise Diagne midi moo fa jot ba tegal fukki simili ak benn bàkk bobé xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi di sa prera maa ngi lay nuyu. ma ngi lay fay euh, Serigne Saliou Seck. mi ngi nonu kon dañ koy daldi tambalé ci réewum Kenya ka ko doon jité ci ay jamono di euh, Daniel Arap Moi mom nag daldi di génn àdduna ni ki suba te ci suba la génn àdduna di ancien président bu Kenya Daniel Arap Moi daldi di diriger japp 1978 ba 2002 mom nak amon lu tollu ci 95 ans décès bi nak cabinet président actuel bi di cabinet euh, président Uhuru Kenyatta moo ko.

ko jaayalee élection yooyu sax ñu waroon ko amal le 16 février bi ñu dëgmal waaye nag fi mu toll nii dañ ko renvoyé ba le 1er mars muy ab décision bi nga xam ne président Alpha Condé moo ko jël report bi nag li tax li tax mu am nee na raison yi mu avancé bokk na ci euh, parti politique opposition mu nga xam ne dañoo boycotté waxtaan yi xew euh, ca réew ma bokk na tamit euh, membre yi nga xam ne mooy commission électorale nationale indépendante ba juróom-ñaar ci ay membres am ñoom dañoo daal di démissionné waaye tamit beneen cause bu tax ñu euh, pousse élection yee mooy ñi nga xam ne ay religieux la nekk si réew ma mooy ñi diine yi dañoo ñaan président Alpha Condé mu mu suspendre élection yi ba ñi nga xam ne ñoo seq langue politique bi ñoom ñoom daal di a jiboo ci ginnaaw ab waxtaan bu ñu war a amal ci ab taabal. xibaaru biti réew yi Malawi lan koy jeexalee wax kon ci euh, cour constitutionnelle bi nga xam si dafa daal di annuler la tukkee woon ci résultat présidentiel ya président 38% huit pour suffrage opposition bi dafa defoon li wax recours ci tribunal bi ndax dafa jàppoon élection yooyee dafa amone ay fraude tribunal bi nag ci mujjantal ga ba mu to mbir ye jàpp na am na mbir yu bari yo xamné jaarul yoon teg sax euh, élection euh, mai 2019 bi passé amul lan résultat boo xam ne jaar na yoon moo mu ordonné ñu defalaat euh, ay nous ñu defaat ay tenue de scrutin un nouveau scrutin madame ay vote bu bees euh, scrutin boobu sax war nañ ko amal fi ak 150 jours ginnaaw euh, déclaration boobu nga xam mom le cour suprême d'aller di def bu fekkee nag euh, loolu président parti bi nga xam parti président Moutarika deful appel ndax yon mën nako ko may nako ko mu def appelu ci li nga xam ne décision tribunal boobee ci coup Malawi capitalam mooy Lilongwe te mu ngi nekk fi nga xam ne Afrique de l'Est Serigne Saliou foofu la ak yow ci xibaaru bitim di sa prera ci yaatalu xibaaru biti réew yi ñu ci yaram tout de suite le sport now sports xibaaru tàggat yaram yi bàkk boobee moom lay yëgle ak ñun ci studio bi Papa jaxate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou Seck di nuyu bépp auditeur ak internaute bu rajo King FM. football lañ koy tàmbalee daal di dellu siwaat wax ci njombe li xewoon ci diggante AS Pikine ak Casa ni ki weekend bi ñu weesu mu mel ni waa Pikine daal di nañuy joxe seen xalaat. démb lañu amaloon ak janook taskatu uh, xibaar yi Serigne Saliou ñoom nag naqarlu nañu li nga xam ne uh, moom xew ci stade Alassane Djigo waaye ñuy leeral ne waar ci wàllum kaaraangeeg organisation ci match googee euh, jël nañu ko ba mu mat sëkk euh, vice président bu AS Pikine euh, jamono ji di xamle ne ña ngay xaar nag dogaluk ligue professionnelle bu football bu Sénégal ci la xewoon ca stade Alassane Djigo ñu teewlu lu Cissé. incident yi am di match ak gaañu gaañu ci am ci côté waa Pikine ci côté waa ñu koy naqarlu bu baax a baax ndax football fair play ci xam ak xaritoo wante buggu ñu ko noonu disposition yi xam ne pour organiser match ligue professionnelle jox ñu ko lépp la ñuy respecté ci cahier de charge ligue professionnelle bi xam ne dafa yaakaaroon ci ñaari équipe yi seen capacité de mobilisation ci seen capacité footballistique jël journée bi def ko télévisé fépp koo nekk ci àdduna bi mën ko seetaan yaakaar boobu dafa tas ndax ba ñu demee ba match bi jeex dañu envahir terrain te ñi ko envoyé mooy supporteru Casa-Sport yi xam ne ni dañu tëb grillage dugg ci biir terrain bi boobu moment boobu nag moo indi jëye ci topp ñu koy naqarlu bu baax a baax di naqarlu ko ci ñi xam ne ni dañ ci jëlee ay blessure ñu ñaan ñu wër a jàmm ba dellusiwaat ndax sport ci loolu la xaj fi mu toll nag Pikine moo ngi xaar ak xel mu dal moo ngi xaar ak sérénité rapport officiel match bi yëpp muy arbitre muy délégué muy dirigeant ligue professionnel yi xam ne ñoo ngi woon ci stade bi parce que keroog dimanche benn match bu rëy boobu rek moom moo amoon ci championnat bi afrique Pikine ñun Pikine ñoo ngi condamné fermement yenn wax yi dégg ay dirigeants yu officiels yu Casa Sport wax ko après le match à la presse wante nag duñ ci commenté sont des officiels yaakaaroon nañ ne bu ñuy wax dañuy wax luy defar football mu ngoog euh, Ligue Pro ñoom it euh, naqarlu nañu mbir mii nga xam ne xew na jamono ji nag neen dañuy xaar li nga xam ne moom moo di procès verbaux yi laata ñu caa yëy yàbbi Amsatou Fall mooy directeur exécutif bu Ligue Pro. bu am rythme bu am rarement ñu koy gis ci ci championnat match boo xam ne ñaari équipe yi ku si nekk jox nga li nga war a li nga war a jox organisation bi macha allah tamit kenn waru si wax dara mobilisation am na tribune bi fees ñaari tribune yëpp a fees comme ce qu'on voit ci match yu mag yi stade bi xumb ba nga xam ni dem nañu ba yaakaar ni mu nekk nii match bi muy waaj a jeex ci arrêt de jeu yi arbitre sifflé na naan supporter yu Casa yi ñoom apprécié wuñ ko noonu maintenant image dana ko war leeral xeer xeer yi di jàkkaarloo mu mel na par exemple te loolu loolu vraiment ñu koy xam chaque fois on dit que nit bu ñu ñëw stade dañu war a calculer ni mën nañ leen gañ ñoom mën nañu gañ mais comme mën nañu am machine nul parce que football lool la mais waxtu ñu la gañee rek nga indi histoire commissaire de match bi ak arbitre ñi nga xam ni ñoom ñoo ñoo fi nekk ligue bi nekk fi en tout cas kuréel yi nga xam ne ñooy saytu yenn contentieux yi bu leen buñ ñu ko joxee ñun daañu ko jox yoo yóbbante rapport bi commissaire discipline commission discipline nag benn commission la boo xam ne amul benn membre ligue bu si nekk c'est une commission boo xam dafa indépendante maanaam buy tàmbar ay mbir ñun duñ koy fekkee buy génne ay décision ñun duñ koy fekkee décision yu ñuy jox ñu moom la ñuy envoyé en tout cas club ñu ngi koy xaar incha allah yaakaar ne ñoom tamit daan si daan si taxaw ak def si lépp yoo loo xam ne war nañ ñuy xaarandi donc euh, Serigne Saliou fu mbëri moomee di mujjee. ñu wax ci football wàllum Europe lu nu fa mën a jàpp. ñaar fukk ak ñetteeli bëccëg bu Ligue 1 bu France tey la ñu koy tàmbali ñetti jongante Monaco Angers ak Lille Rennes bu juróom-benn waxtu ci ngoon jotee euh, bu ñu ci tegee ñaari waxtu nant dina dalal Paris Saint-Germain euh, ci Angleterre ñeenteelu tour FA Cup ay replay maanaam ay match yu ñu joué waat tey benn match bu ca gën fa fës Liverpool di joué ak Shrewsbury Town waaye ñoom Sadio Mané ak bile dogal wàllum transfert footballkat yi Manchester City ne noppi na daal di jël salaire bu gën a mag ci club ba jox ko Kalidou Koulibaly yi ndax ñoom kilifa yu Red Devils yu yu Red Devils yu Manchester nee nañu faw rekk ñu jënd yi def ko ci seen défense ngir ñu gën a mën a euh, dëgër ci euh, championnat bi. Special Olympics gannaaw kon euh, jaloore yi ñu def ci jeux panafricains yi mu mel ni kon ñi ngay waajal yeneen i mbir. ci Égypte juróomi athlètes ya leen teewaloon teewaloon ñeenti médaille la ñu fa amone lolé spécial olympique Sénégal diko ko referlu né jamono ñi nak seen xel ma nga compétition jeux panafricains yu 2021 ak jeux mondiaux yu 2020 Rajasi, moy président google euh, structure ay jambar lañu nak parce que vraiment ragaluñu woon dara dem nañu xeex nañu indi nañu ay médailles médailles yi ngeen xam di féliciter également encadrement technique bi xalé yi li ñu def liggéeyu préparation technique bi nga xam ne coach yi ñoko def ci seen gannaaw lan moy ñuy xaar déjà euh, affaire yi taxaw na ba nag euh, 2022 mooy deuxième édition jeux panafricains yi mi ngi nar am Rwanda 2024 mu nar am jeux mondiaux yi nga xam ne day nek euh, Berlin yalla def na ne bi nga xam ne bi ñuy def jeux panafricains yi ci la signer contrat bi pour jeux mondiaux de Berlin l'an 2024 kon nak liñu dess ñun moy liggéey préparer équipe yi def ay détection yu bees ba nga xamné 2022 ak 2024 Inshallah. dinañ mëna am équipe bu taxaw mëna participer jogonté yoyu indi waat ñu l'espère ndam pour Sénégal. ci kàddu raja si yooyu ci lañu yamalé xibaaru tàggat yaram Serigne Saliou Seck. cianta ak ngërëm na la bu baax baax Papa Ma jaxaté sar ci yaatalu xibaaru tàggat yaram xibaaru caada yi bu bak bi daano tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wër te wóor. dañ koy tambalé wax kon ci ndawé artiste si naka la def kon ba mën a daal di euh, bénéficier wu ci euh, expérience bi bàyyeekoo kon ci industrie musicale américaine loolu nag moo sababoon kon waxtaan wu yaatu wuñ doon amale ca maison des cultures urbaines de Dakar teewoon nako ko wala sax ñu daal di euh, teewlu ci loolu ki nga xam si moo di Amadou Fall Ba moom nag ay kàddoom ak nii dénk na ko Kumba Ba mu mel kon loolee yëmbagul nekk mbir moo xam si dafa daal di jëm ci walum expérience jëm ci industrie musicale américaine loolu kon moo waraloon ba ay artistes doon fa daal di euh, waxtaanee mbir mu ni mel maison des cultures urbaines de Dakar ñu teewlu ci loolu kon ki yore seen kàddu di euh, Amadou Fall ba ay kàddu mag nii dénk na ko Kumba Ba. ndaw la ci ay at waaye fees dell ak talent. maa ngi tudd Mamadou mais mon nom d'artiste c'est Mumzi. muy turu artiste di ñu xamal ni du dellu ginnaaw mukk ci ay mëbëtam ci aar bi muy def. dina am benn genre disque boo xamante ne danga koy lancer sandiwaale say clip juste pour. public bi lay xaar ñu mën a xam ne carrément yaa ngi si liggéey bi quoi yaa ngi si bon si actuellement là loolu lañ nekk di liggéey mooy si projet yi te incha allah yàggatul léegi gars yi gars yi gis quoi. étudiant la ca FASEG waaye bëgg-bëggam ci rab fasu koo yéenee bàyyi ndax leneen. étudiant la maa ngi université Cheikh Anta Diop. rab bi bu doon nelaw la si man aussi yàgg na quoi depuis moo nekkee booy dama doon déglu rab mais euh, en 2015 laa laa ne samay parents que dama bëgg rab quoi mais période boobu nanguñ ko woon xam nga dañ ma ne woon naa jàng ba am bac su ma xasee ba am bac léegi laa man mën naa def sama choix quoi su ma doon bàyyi si ñaari je peux dire jàng bi laay bàyyi quoi parce que rab bi dama dem ci jamono ji toll ak jafe-jafe yi musique sénégalaise di jànkonteel rawatina ak réseaux sociaux yi teewul mu jàpp ne mën na cee génn. jamono ji ak affaire de pirate yi ngay gis et tout la piraterie dangay dangay gis ku sonn job albumam génnee ko gars yi pirate ko te dafa doon loo xam ne dañ koy ñaalu aussi quoi. te sama rêve yemul si ci kese quoi en fait musique la musique la dafa naa def sama dëkk par exemple euh, li légende yi def quoi muy benn Youssou Ndour. fii àdduna bi tollu ak xarala yu yees yeeg réseaux sociaux yi nekk jumtukaay yu am njëriñ naam waaye amit ay loronge rawatina ci artist yi. waaye obstacle yooyu artiste bi duñu xamal ni pare na pour dékku leen ndax aar mooy li koy dundal. am réel nigas duma pàkk ñaari boor pëndal sama zone pourtant maa ngi soog a door ne leen gane si naa dootuñu gagné disque d'or dama dëkk xaar yàlla te nga pare sa mor. jaajëf Kumba baax ñu wax kon ci ah, li ñu duppee crayon make-up nekk kon ay pastel yoo xam ne si jigéen ñi ñoo koy daal di jëfandikoo léeg-léeg nag mu indi leen njeexintal rawatina ci seen wàllu wér gu di leen di def ay picc yeneen yu ñuy jëm. for to sow crayon make-up yi doon lu jigéen ñi jël lool ci jamono bi ñu koy defee nag ci produit yu wuute lool qualité Ablaye Diop alias Mbeur lañ koy wax ñu fekk ko ci biir place ak client wam bii bokk xam semaine bi encre bi urgent bi am nga lii la ñu xamal ci xeetu produit li ñuy jëfandikoo dafa am boo xam ne encre tanso bi la boobu moo gën a baax boobu du allergie boobu du ñuulal du tas sa loxo yi du taasa sa loxo yi du taqa sa loxo yi mais am na ci ñoo xam ne dañu jël ñuulal lu chinois bi jar cent franc moom la soit moom la ñuy tatouage day gaaw a deñ mais bu dee lii lii kanam gi encre bi ñuy tatouage yow loolu mën na allergir sa kanam gi parce que sa der lay doon mais du doon ci encre yi der bi moo oyof am na ñoo xam ne seen yaram bëggul allergir kii te encre bi encre bu mel ni doon seen yaram moo ko bëggul Adama biñ ko séenee muy dox make up lañ gis te yéen ya bi ñu ko laajee nag moom xamal nañu ni sax ni mës na ko indil ay jafe waaye teewul mi ngi koy def ba tey ndax lu mu bëgg lool la indi woon sama yéene ay picc mais ba ma demee pharmacie dañ maa bindal yu koy dindi affaire yooyu ba mu deñ mënuñu koo ñàkk bañ a def nag ndax am na jigéen ñoo xam ne dañ ko allergie am na ñoo xam ne tamit allergie wuñ ko mais ñi koy defa tamit dañoo war a xool tamit produit yi ñu koy def ba du indil benn ku koy def gàllankoor. mu doon liggéey bu dox ci jamono bu nekk moo xam événement wala sax bu ko nekkul. chaque jour moom day neex ñu ngi sant yàlla bu baax mais bu xasee moom du a bu weer bi dee nii xam nga ak weer bi ay la cinq

tey ñu leen di defal nataalu Mary Higgins Clark moom nag uh, ab bindkat la woon uh, boo xam si àdduna wërngal këpp daan na koy uh, daal di ràññee mu fekk baax fële ci réewum l'Amérique ñu ko daan woowee la reine du suspense moom nag daanaka na mu doore ba ni mu génnee àdduna keroog fanweeri fan ak benn ci weeru janvier atum deux mille deux mille vingt bi ay mbiram ñëpp dañ koy waxtaanee ci àdduna ak li ko wër lenn ci ay jaar-jaaram ak Papa Madiakhate Sarr. I honestly think that, that the people who have had to work the hardest are often the ones who become the most successful. soxna si ngeen di dégg bokkoon na ci bindkat yi gën a ràññeeku ci àdduna wërngal këpp ak téeméeri million ngi livre yoo xam jaay na ko ci àdduna bi ci atu 1999 ab sondage bu fësoon ci journal Le Monde Tegon, kii di Mary Higgins Clark ci ñaareelu position bindkat yi tuut tànk yi am Digente, fukki at ak ñaar jàpp fanweeri at di ëpp li ñuy liir téere yi ñu bind mu jot bind sax lu ëpp fanweeri roman recueil de nouvelles nouvelle ak benn mémoire daanaka téeréem yépp mu nga cay wax métit yi nga xam ne soxna yi ñu ngi koy jànkuwanteel ci seen ak dund muy liñ leen di sàkku càccum gone ak faatuk tout yi loolu lépp mu koy def jaarale ko ci genre littéraire bi di polar wala suspense bëri na ci ay téeréem yoo xam sax jot nañu ko adapté ci télévision wala ca cinéma waaye nag Marie Higgins Clark l'ata àdduna wërgal këpp di ko xam ba am koppar gu bari ci nekkoon na fi hôtesse de l'air te mu ngi tàmbalee bind ginnaaw ba boroom këram gu njëkk ñàkkee bakkanam ba taxoon mu war a yor moom képp juróomi tuut tànk yi ñu ci am téereem gu njëkk mu duppeekoo la maison du guet mu am ci ndam lu rëy ba téere gi tax àdduna wërngal këpp daal di koy ràññee ci biir téere googu mu cay nettali ak way jur gu jigéen ju daal di faat ñaari doomam téereem gu mujj mu duppeekoo ko Kiss the Girls and Make Them Cry mu publier ko ci atum 2019 ma nga cay wax ab enquête ab journaliste defoon ci ab harcèlement sexuel bu ñu defee ci chaîne de télévision bokk na ci raaya yi prix bu festival du cinéma de Deauville ab grade docteur honoris causa bu ko université Fordham D'Al di jox ñaar yépp mu jot ko ci 1998 Marie Teresa Eleanor Higgins Diturum turam dëgg juddu ñaar fukki fan ak ci décembre 1927 New York mu aduna Kerok. àdduna keroog fanweeri fan ak ci janvier atum 2020 ca Floride ca ba muy am juróom-ñeent fukki at ak jaajëf papa ma jaxate Sarr midi culture ñu jàll ci gan gi. midi culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal Sidi Samb nekk ab woykat nag euh, bu siiw lool euh, yaayam moo di euh, Daaro Mbaye ñëpp xam ko ci wàllu musique ak yu ci demee moom nag daanaka dañ koo gëjoon a dégg moom Sidi Samb ci wàllu musique beekalu ci jëm tax nag mu dellu si waat ak ab album boo xam si nee na juróom-ñetti fan ci weeru février bi nu dëgmal la ko nar a laaj ak tontu dox na digganteem ak Ndeye Mati Dieng. Sidi Samb ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. dalal ci midi culture. ma fi ñew nak wara jakarlo sama eh, fancy, sama soppe sama am di jammi eh, ci fatali way kat nga waye dañ la xawa a gëj a dégg Sidi Samb ci lan la nekkon waaw lan xawa a dégg ci national bi mais ma ngi évoluer ci benen monde eh, muy international bi kon dal bu ñu déggee nekk won Sénégal mais yaa ngi way fenen wa bien sûr wa, parce que ku xam Sidi Samb rek xam nga ni que dafa nekk ci ñaari carrière benn bi international benn bi national comme lay faral di wax tout temps rek mëno jëmandoo ñaari à la fois foog nga def benn by benn pour mëna nekk ci benen pour mëna fonctionné comme ni mu waree. kon ndax mën nañ xam lan moo la dellu si waat Sénégal jamono yi. Ah, en dehors de juddoo fi ma fi màggee fi jàng fi aar bi. dama ñëw pour présenter sama album bi nga xam ne war na génn incha allah mu tudd Naxoma nekk album en live euh, ñu war ko présenter incha allah le huit fii ci place bu ñuy wax Villa Cristal. ñaata titre moo ci nekk. album am na huit titres. donc morceaux yi xam ne ñoom ñoo nu gën a marqué sunu carrière. sélection bi nag soppe yi ñoom ñoo ko def. ñu jël ko tëggaat ko def ci arrangement yu bees way ci waye ci neneen pour ñoom ñu mën koo enjoy. Euh, Seydi Samb nañ la dégg fii ci Sénégal suma ma juumul depuis 2015 nga génne woon ñaari album muy euh, Ada ak suñu Ada yi ak tamit euh, sunu 2015 ba léegi nak évolution am ci musique ndax Seydi Samb sóoraale na loolu ci album bu bees bi mu waaj a génn waaw bien sûr parce que en fait euh, comme li ma ko faral di wax rek Seydi Samb carrière lay def du ma def la même chose toujours damay toujours di fexe nu ma enrichir sama musique lu bees lu ma génn rek damay fexe nu ma ci mën a adopté ba yeneen dégg-dégg yu bees mën mën ko capté donc voilà tooguma rek ci fi ma toog donc damay jàng tout le temps saa yu ma yeewoo nag damay jàng parce que musique moom loolu la ta carrière c' est comme ça chaque jour da ngay jàng di jàng di jàng jàng. Euh, Sidi Samb waykat yi nga xamante ne dañuy way feneen euh, biti réew da ngay gis ne bu ñu toogee foofu lu yàgg bu ñu dellu si waatee Sénégal dafay mel ni comme kuy recommencé waat yow loolu noo ko gisee. waaw loolu man euh, sama cas daluma parce que en dehors de de tout Sidi Samb dafa nekk ci xolu Sénégalais yi rax ci dolli respecté ñi nga xam ñoom ñoo ñuy déglu lépp lu nga xam ni moom mu def musicalement dama koy segg togg ko ba ku ko déglu tey déglu ko vingt ans temps da nga da nga da nga ciy jëlee njariñ non donc loolu dama koy sóoraale tout le temps samay œuvre ñi fi te ñi ngi dundal di dund di bees tout le temps même su fekkee toog naa lu yàgg génnuma album euh, Sidi Samb dafay bëgg di way ci espagnol lan mooy sa lien ak euh, waa dëkk boobu ndax nekkoon nga fa sax animateur rajo waaw sama lien Espagne dafa nekk sama deuxième nation comme ni ma koy waxee non c'est bien vrai que Sénégal fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màggee a dafa def ci man professionnalisme ci nga xam li nga xam mooy sama carrière dama ubbil bunt yu bari ci niveau international bi donc loolu nak mënoo ko taxañ rek bàyyi dëkk boo fa defee plus de 20 ans je pense que am nga am nga fa benn point boo xam ni war nga ko war a mën a marqué no je parle espagnol comme ni may waxee wolof euh, loolu nag li ma ko may mooy euh, ouverture intégré ou voilà wan leen ni que je suis un sénégalais fait de la musique donc je suis là pour comme un ambassadeur de la musique sénégalaise euh, fu ma demit damay fighting bëgg Sénégal jug fa Sénégal yëkkati wu fa. kon ñoo ngi lay jaajëfal. waa maa ngi leen di jaajëfal di jaajëfal waa rajo bi. li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck musiba du ci bopp borom la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne jàngoroy coronavirus gi lëmbe réewum Chine tax na ba réewum Sénégal tàmbali ko yëg l'observateur a ko wax journalu Futurs Médias bi ne jàngoroy coronavirus ba xew ci réewum Chine tax na ba nu wàññi jëflante gi doxoon ci diggante réewum Chine ak réewum Sénégal rawatina ci wàllu marchandise président Macky Sall tamit ma waroon a dem ca boor yooye itam dakkal na ko Le Quotidien nekk ca Wuhan nga nekk ca Chine te jàngoroy coronavirus lëmbe fa baye boo ñu def ndax président Macky Sall nee na Sénégal amagul benn jumtukaay ngir jëli seen doom ya fa nekk président ne loolee nag matériel dëgg moo koy def te it faaw ñu am roppalaan yoo xam ne si ay avion spéciaux lay doon yoo xam ne si ñoo fay dem ba ca barab ba jëli leen te it ba koy yor dina wuuteeg yi nekk ci compagnie aérienne yi fi nekk président Macky Sall yokku ci ne Sénégalais yooyu it bés bu nu defoon ni pexe ba nu dellu si ci réewum Sénégal faaw ñu ber leen xoolaat seen yaram réew mi quotidien lii nag mooy tekki ne président Macky Sall lajj dëgg la def jëmale ko ci étudiant sénégalais ya nekk ca diwaanu Sine dëgg la ndax nag président mënoon naa xool meneen pexe mu dul kàddu yi mu yëkkati Vox Populi ne président Macky Sall kay dafa abandonné doomu réewam ya nekk ca Wuhan nga nekk ca Chine te jàngoroy coronavirus di fa lëmbe Boubacar bu Horizon sans frontières ne lii nag mooy tekki ne président Macky Sall kay yemul foofu ndax nag nee na du jël roppalaan benn yoon naan damay tiim réewum Chine jamono ji ngir di utali Corée ba tax ca raayo ban ko fa waroon a jébbal mbaw ngir ñu demal ko ca Corée te journal bi nee na raaya googee nala ko yàlla na bu ndax amul benn dayo su su aane explication yi fi président Macky Sall wax jëmale ko ci jàngoroy coronavirus ak xeetali étudiants yi fa nekk daanaka dafa tigoo maanaam dafa yomb waaye nag yéene kaay bi nee na lu ci man di am daal jamono ji jàngoroy coronavirus mu ngay lëmbe réewum Chine réewum Sénégal moom rapport yi fi cour des comptes fesaloon moo koy lëmbe jamono ji le témoin moom xëy sampalaaj ne ndax jotul corps de contrôle ñu boole leen cos bre teg ci seen kaw taal ndax naka amuñu benn dayo te it amuñu benn njariñ njariñ ba noppe lépp luñ fi fësalit ci aacam rekk lay mujjee journal bi ne gis nañ fi ba tàyyi ñu ci gaay yi jàpp képp leen fi barab fësal seeni mbóot waaye ba fii France dali xëddéen le quotidien la ko waral moo di rapport bu fi corps de contrôle yi génne gaay yi tàmbali koo diingat ak di leen soofantal si du quotidien ne droit de l'homme yi bokkunu gis-gis ci rapport yi cour des comptes mujjee fësal yéeni bi ne boo ci jëlee ñu ci mel ne yoon ba nga génne koppar yi wala nga wax foo ko dugal keneen ku ca gisee neneen moo di maître Pape Sène avocat bi lu mu xamle moo di ci mbiri rapport yu bees yi faaw ñu tey ca laas yéenekaay ne ndeyi mbil gi di njiitu réewum Sénégal di président Macky Sall moom la mu wax moo di na yoon jëfe ba mu mat santaane yi waa Cour des comptes def ci mbir mu ni mel enquête yéenekaay ne loolee nag ci ay wax rekk la nara yam ndax nag kumba am nday ak kumba amul nday gi am ci mim réew journal bi ne la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo moo di ne fàttewu fi ba fii mbiri Khalifa Babacar ba ci Aïda Dione bi leen Cour des comptes contrôle yi tuumaale dañ leen a topp ba ñu sës ci miir bi ñu door leen daan yat wi dal ci seen kaw te ba fii am na ci ñoo xam ne si gaa yi tuddoon nañ leen ci ak léexoor akuk njublaŋ waaye ba fii kenn tuddu leen leneen ci feneen mu di njombe di insécurité di ñàkkum kaaraange gi lëmbe réew mi évidence yéeni kaay ne ca impôt et domaine moom musiba dëgg moo leen laal ndax nag jamono ji ay jaan di serpent mooy dugg ca seen biir di leen lëmbe wàllu musique la jeexale jotaayu Midi Culture tey ñu leen kon Jamaana Express ci woy bi mu du kon foofee la ñu ak yéen ci euh, Midi Culture yamoo itam ak li nu cërale ci waxtu jeex di jaajëfal bu baax a baax ñun doon may nopp ci 99 point 4 doon topp ci king fm sn canta ngërëm ñeel na bu baax a baax kadeerulu Abdoul mi nekkoon ci euh, machine bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kàddu gi production Lamine Ndiaye digital euh, Yacine Pouy réalisation Dissa Prera jaajëfal képp ku jàpp ci midi culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. midi culture.